ak quelques jours ma tudd tur hmm. xëy na dangeen xaw dafa xaw a ñagas daal ci diggante ego yi ku mel ni Maurice Ndour baal ma tudd sëñ bi dégg naa moom yorul waxtaan bu fekkee mënu wax la wax <laughs> bu fekkee mënu wax ku la wax ah. mais nee nañ yàgg Maurice Ndour neexoo woo looloo tax nga gëj ci équipe bi sa rapport tamit ak coach bi nu mu demee ah, léegi man ma benn mbir laa bëgg a xam hmm. man suñu borom bu may dimbali Maurice nekk fa hmm. équipe nationale maa fay sonn kon lan moo tax nga waroon a ñëw di wut ay ennemi équipe nationale man kay bu may wut ku ma neexul feneen laa koy wutee furul foofu ah fii équipe nationale boo fi ñëwee ba tey keneen ku fi ñëw maa woo léegi pour mu leer keneen ku fi ñëw rek maa la ba fi ñu toll nii américains yi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ay du ñu Sénégal parce que dama fi ñëw di sama sama dëkk moom a indi ñëw ma fi pour xool lii neex na ko lii nakaar na ko wala léeg-léeg laa mhm. te am tijjil kii ñëpp déglu képp koo xam ne mos na ma dégg équipe nationale ma coow dañoo ni ah góor gi de defoon na lii wala wax na lii wala wax na lii. en tout cas ñun ñun ñun bëgg nañ sa philosophie. de de de ay nit yu mel ni yow. Euh, bëgg nañu ko ci suñu équipe nationale ci suñu ay mbir yoo xamante ni yëfi Sénégal la nga xam ne booy def. doo xaar voilà. donc et il rappelle comme Jules François Bocandé. bah oui def na lu bari lu mel nii sama xel bi ngay wax ne. comme Youssou Ndour cest dire dañuy soxla ay nit yu def te duñu xaar. Euh, duñu xaar état duñu dugg ci ay détails ak ay polémiques. ba muy ñëw Pape Cheikh te ñu bari xamuñu ko. Hmm. bañ la convoqué dañ la recalé.